جار بارا رضي الله عنه وأرضاه عنا وجعلنا ممن يحسنون الاقتداء به في تعاليمه السنية النافعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خمنا نك لي نجيك ديف موي جيغلو جيغلو نده باس بي تانغنا لول ليكو liko نك nak بي داكو جندون مو جوغي سين joge اكسي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 ndax xam na ne sàmm ngeen ko na mu gën a rafete seen digg njabootu sëñ Tuubaa yi kon yàlla na ne yàlla fay ca na mu gën a rafete te sàmmal nu li ñu bokk ak li ñu boole ba bu seytaane am ci naw yoon inna seytaane lakum aduwun fattaxisu aduwan ginnaaw loolu yéen délégation yi fi teewal njiite réew mi président de la république Bassirou Diomaye Faye ñi ci njiital ministre intérieur di sénéral Jean-Baptiste ak mboolem ministère yi nga àndal yëpp ak mboolem chef de service yëpp ak mboolem délégation yi fi teewal mboolem banqaas yi fond réew yëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di yóbbante ay cant ak ci ngërëm ci njiital réew mi ci taxawaayam ak mboolem ay jëwriñam ci màggal gi ndax xam na ne diggante bi gàtt na ndax juróom weer bëreegut waaye wane ngeen ci seen yéene wane ci seen taxawaay ba mi ngi leen di sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla suñ borom lii nga xam ne yàllaa ko ko dénk yu coobareem yàlla na ko àggali ci jàmm te mboolem yaakaar ji réew mi am ci moom bañ tas mi ngi nii itam mboolem ay jëwriñam buñ ci tuddee premier ministre Ousmane Sonko nga xam ne ñoo def bërti ba sëriñ bi la yóbbanti ci moom mooy ak cant ak ngërëm di la di ko jeexale cant gi ci yow mi nga xam ne nag yaa doon taxawu màggal gi di ministre de l'intérieur ak mboolem ña ko ànduloo ñëpp ak mboolem ministère yëpp ndax lim nañ leen te limoon nañ leen ku ci ne ñëw na fi wane si yéen ak sa taxawaay kon sëriñ bi wax na ne sant na leen gërëm na leen te sëriñ Abdoul Ahad Mbacké daa waxoon ne sëriñ Tuubaa nee na wa xaysuma xasanatil insaanu ilayka fahmathu bilaa tawaani saa su la nit ci defalee lu baax na ko sant fa saas te bu ko yeexee yéen ambassadeur ak mboolem membre corps diplomate yi fi teew sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di leen yóbbante ay nuyoo ci seen njiiti réew ya xam ne ñoon nga fi baax nag mboolem yeneen formation politique yi fi teew di sant bu baax mboolem kilifa yoon wi ci seen taxawaay bu rafet ak seen jàppale ko ci liggéey Serigne Touba bii mu teg ci loxoom di sant di gërëm bokki taalibe yi nga xam ne ñoo wuy si ndigalu Serigne Touba li mu jox ci bis bii ñu doon dundal muy fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar mu sàkk woon ñu ko ci santale yàlla ci xéewal yu yu bari yu koy dikkal te sababu won ci tukub géej ndax sant dafa bokku ci xewal yi gëna mag ci jambu yàlla balillahi fa'budukum wa min ash-shakirin wa man yashkur fi innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fi inna allaha ghaniyyun hamid nee na bu ngeen bu ngeen santee ma dool leen waaye bu ngeen gàntoo mi ngi leen di ndik ak ci mbugalam la in shakartum la azidannakum wala in kafartumoo inna asabi la shadid kon nag noo ngi sant yàlla ci fekke gi ak tal gi màggalu ren ji nag mooy defoog téeméeri at ginnaaw bi Serigne Touba ñibbisee Touba ginnaaw dund gu barkeel goo xam ne lépp mi ngi ko jeexal ci rafetal diggam ak boroomam ci jaamu ko bil imaani wal islaami wal ihsaan jeexal ko it ci rafetal diggam ak jaamu yàlla yi ci jaamu yàlla ci ñoom ci gindi leen ak defar leen ak jariñ leen wan leen mbaax tàggat leen ci ànd ak ñoom di ko dund na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan dunde ak saxaaba yi daan woo ñëpp ci wéetal yàlla ak jaamu ko ci sunna wax na ne adduhu ilal ilahi bi tawxidi wa ma raaytu anhu min mahidi adduhu ilayhi bi tafaquhi maha ميل لخيره وكل قبلا أدعو إليه بالتصوف مع مكارم الأخلاق وهو الشميعة ànd ak taalibe yi ci taxliye leen ba ñu set wicc taxliye leen ba ñu fees del ànd ak bokk yi ci yërëm leen yiir leen defar leen defal leen ba kenn bëggul di moroomam ànd ak jàmbur yi ci jegeel leen ak jëriñ leen ànd ak buur yi ak warum ndombay tànk yi ci gindi leen ak laabiiri leen ak dig dig ak dig leen fu ñu toll ñuy sax ci njub daan leen wax ne ku ci àdduna jox dara na xam ne ci moroomam la ko nangoo tey dana ko masa nanguwaat ci moom jox ko keneen kon ku ci yàlla jox doole na ca sàkku ngërëmam te moytu ci ak tooñ ak làqu ko tooñ ak far ko tey dimbale néew ji doole yi ak yërëm leen ak bañ a xañ kenn àqam daan na wax ne man zalima nadima wa man jara baara kuy kuy tooñ da ko rëccu te ku jengit di alko lii nag Serigne Touba mi ngi ko digaloon buur ba jolof sàmbale bu faal kon nañu xam ne fukki fan ak juróom ñett ci weer safar ndax at mu jot bu ma saan aksi nattu yi yëpp dañu koy ful ci metti metti ak ci tartar waye lépp mu di ko ndax jom ja ba ci atum masasin ci lañu ko xama ne ko natt yi jeex li ci sa kanam lépp ak mayla la ak xewal ta day yokk at mu ne ñi nattu yi doon yokkoo fadr wala wa lor dem na xéewal ñëw wa kulli shahrin zaid rebhi wa fi safar neena wer wu nek ak wer safar wu ne yàlla day yokku samay ton mo wax ma ne may ko yàlla may dafa lott ci sant ko dëgg-dëgg sant dëgg-dëgg sant hibaatuka lii ahayat ahayat shukuriya fil kunhi lakal hamdu ya fardan taalayta an shibi mo wax ne cant gi da koy jéem waaye mënu ko xawaltu shukurallahi fii turabi بعد جميل بعد جميل الصبر في اقترابي موتاخ tax mu war taalib bi yëpp ak képp koo xam ne ويرا سفر ويغا خامني ci la génn dem ci géej gi atum jey sasin moom lay wooye safarul xuruji dana ko tudd it safarul jalili ngir melow jalaal yu ko yàlla feeñoo ba nattu yi dikkal ko weeru safar wi nga xam nag ci la nattu yi jeexe te mooy safaru masasin moom lay wooye safarul xaraaji ngir ci la may yi dikke dana ko wooye itam safarul jamili ngir melow jamaal wi ko yàlla feeñoo ba nattu ba nattu yi dem xéewal yi dëgmal ko moo tax mu wax ne yaa man jaala bi fadlika wa juudika safara masasin jasaan lii boroom xam-xam yi dañuy faral di wax ne aljasaau min jinsil amali jëf ju ne la mu xeetewal lañu koy la ñu koy fay nu mu toll it la koy faye kon baax na ñu xam ne lenn ci nat lenn ci nattu yi nga xam ne suñu bam nattoonu ko sëriñ bi muy al alanaasur arbaha te mooy te mooy suuf sawara ngelaw ñoo dambi adduna bi ci la yàlla di jaarale xéewal yi waaye ci la yàlla di jaarale nattu suñu xoolee yonente yàlla yunus nattoom ci ndox la jaaree nekk na ci biir gi géej gi ñeen fukki fan fa sahama fa kaana mina mudahadin faltaxamul xuut waxu mu lihun yonente yàlla yusuf amna ton ci bir souf la jare nek na ci bir souf ab dir ak nek ci bir kasso ba yàlla dogal mu génn ci ak ndam qaala qaa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alxuuhu fi xayaabati juddi yaltaxiruhu ba'du shiyar in kuntum in faa'iliin yonent yàlla ibrahima am na toon ci sawara la jare qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin rew yu bari ci ngelaw la len yàlla di alake wa amma aadun fa uhliku bi riihin sarsarin aatiyatin yonente yàlla Suleymaan yàlla dafa tàggatal ngelaw ba nu ko bëggee rek ngelaw def ko topp ko ci ni mu ko bëggee wa saxarnaa lahu riiha tajri bi amrihi ruxaan haysu asab waaye bi mu koy nattu ci ngelaw la ko jaare te mooy diine tàggat gi ci ngelaw li kon ñeent yi naka jekk ci la yàlla di xéewale ci lay nattoo ci lay mbugale فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته صيحته ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أخرقنا Sëriñ Tuubaa nee na li ma yàlla may borom xam-xam yëwuyoon mënuñoo def ay gëstu ak jàngat ba xam ko ak xaaliyal baatina maa la yazharu li man tabaharu wa man tamaharu may googi nag moo waral nit ñi dëgmal ko wallahu yansuru nii والحلق تتبعني في البر والبحر زان نحن بلا ضرر نيدور سي بارك ادنا نيدور سي اكنجب وكل من احبني او مالا الي فرزق هدى او مالا نانا كيبو كوما بغ باغي نيو سي مان يا يالا مايكو اكنجب مايكو علال نيار ييب نك موي موتش اك علال يالا ماي نكو كو ماي غوسخ زيت هدايا put hadaya li biri da ya do na barakatun laa tansarim tawshiati kamadadi laa tanxarim sama barke day sax te day wéy tëbb yi ma yàlla di tëbb ma di ci ju jubale nit ñi moom it day sax bu faw nee na wal tuuxti kulla man li ajlil barakat lin xaada yaa baranka faa nii mushrikat wal tasfi kulla man li ajli maradi lin lin xaada yaa man li yaquudu xorodi nee na ku ñëw ci man ngir tawat ju ko dal saafaraal tawat ja وتعطي كل من لأجل الجهل لن قاد علما ما هي لجهل ku ñëw ci man ngir réer joo ko xam-xam bu ko faral ak réer ba faw jàmbat yëpp da ko daa faj ci mbóot mi ko yàlla jox wax na ne hadaniya allah wa abqa lil huda wali ilal jinaani kulli hada yàlla jubal na ma bàyyin ba bàyyin ba fi njub gi muy sax bakeru àjjana sama lépp la ma jubalal mu dellu waxaat ne ataaniya zikra alxakima saliba لي لي هدا هو العدا لي خالبا يلا جوحنا مع الخان جوح ما جوب جوب جيتي نك نطلنا ما سمينون من يلا جوحنا مع الخان جوح جوحنا مع الخان جوحنا ما جوب جيتي نك نطلنا ما سمينون سنيو خاله sëriñ bi ñeenti élément yooyu yëpp yàlla nattu na ko ci ndax yóbbu nañ ko ci géej gi diir bu yàgg asam asamaan si di taw ci kawam mu ne ci géej di tumuranke fa man yulqi nii fil bahri raw man li xurbati fa lii min ilaahi rawdu fii kulli xaylami sëriñ bi nattu nañ ko ci géej ndax ca ba batax yoon wi mu di mu di ko tudde al xaybatul bahriya yonent yàlla ibrahima dugal nañ ko ci kambu sawara suñu borom xettali ko ne ko xul naa yaa naaru ko ni baran wa salaam ala ibrahima sëriñ bi ca gabon lañu ko gasale am yeer sëriñ abdul ahad mbàkke wax na ne soxna jaar moo jàpp ci ay baggam yëkkati ko ne ko buñ yàq sab liggéey yonent yàlla yonent yàlla moussa yàlla suleymaan سنجالو لين كوناتو سيرين بي يوبني كو تي غانار فانغيلو لا غينا باري غينا تانغ موتاخ مو وخني فتنتني فتن من تقدمو فلياتني منك منهم تقدم ناتوغما ناتو ني جيتون كون ديفال ما اك جيتو جي سين باركه لولا يالا ديفال نكو دا وخني قدمني الله على الخدام بالمصطفى المثبت الاقدام من يالا جيتال نما سي مبولم ني ليغيال يونتبي صلى الله عليه وسلم ci barke moom mi nga xam ne mooy jàppal gaa seen tànk di leen moom mi ko yàlla may nag ginnaaw ko yàlla gërëmee da koo nëbbu ba yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xamu ko sëriñ Abdoulaye Mbacke nag daana wax ne xéewal fa reen ba di sax kenn du ko xam ba ko dagg moo tax sëriñ Tuubaa wax ne radiya anni man raditu anhu wa xaala li sirri wa xuswa sunhu yàlla gërëm na ma man it gërëm naa ko mu ne ma jëlee sama mbóot mii te nga ñongal ko mu dellu waxaat ne wa qaada lii wa lii qaada sirran xaaba an xayrihi lmuhi yàlla jox na mbóot moo xam ne ku moom xam ko ilaya qaada maliki mu sax hawaliki lxawaaliki uniiru qalba zaliki bi zahiri moom fami nee na suñu boom jox na ma luy dindi lëndëm lëndëm yi ci xol yi moo tax damay leer xol xolub murid bi sóobu ci saahir ak baatin lolo waral defar yomb lol ci keppaar moom sëriñ Tuubaa sëriñ Bay Jaxate wax na ne bu jappé ku bokkam ya fa sànni bu dello ci bokkam ya mo fay tane njub googu nak yàlla jox na ko ko ba àdduna tukki du fi jóg hibaatu man jalla al misaali khallad li mu al amsal yàlla mi nga xamné amul morom maynama lol da fi sax di tarxiya mbooloo mi moo njabotum gu maggi Serigne Saylou Mbacke dégg naa ci kàddoom mu ne waxoon na ak Cheikh Mahamadou ak ak Cheikh Mahamadou Fadi ne leen seenub liggéey ci nit ñi jëm ndax yàlla damaa damaa liggéey suñ boom ba mu fay bindee fi kon yàlla damaa fay nit moo tax du ngeen tàggootu nit li ma leen di digal nag mooy suñu dikkee fi yéen bu kenn tumuranke seen kër def leen fay njaq bu fa kenn xiif mu teg ca na mbooloo mi ñëw ci yéen du weesu ñaar ñi kuy laaj ak kuy joxe mu ne ñaar ñooñu rek ku leen xàmmee yàlla jëppi la waaye nag yàlla def na joxe waaye ñu ñi joxe jamono junne ñoo ëpp ñu laaj waaye li ma leen li ma leen di wax daal laaj aw fit ndax ku la gën a tabe bu ngeen doon xeex moo lay moo lay mën Sëriñ Tuubaa nag xéewal la goo xam ne ko ko yàlla baaxee war ngaa xam bu baax li la yàlla defal te fonk ko te bañ ko boole ak dara ndax yàlla mi ko bindu moo ko defal fitra salima teel ko wan Serigne Touba nag xéewal la goo ku ko yàlla baaxe war ngaa xam bu baax li la yàlla defal te fonk ko bañ koo boole ak dara ndax yàlla mi ko bind moo ko defal fitra salima teel ko won yoon wu muy jaar ca teel ba muy jukk alifa nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakasa nujabaaw noonee la nekk woon ak i waajuram ba jaaxal leen ci ndawam di taxaw guddi di doxe doxeen noo xam ne miinuñu ko ci ku toll ci atam bi mu tollee ci xàmmee tegu ci yoon wi ko ay waajuram sóob ci ci nangu ak sàkku xam-xam te la ràññiku lool ci lu baax ak xam-xam féete kilifa fam fépp yoral ko daara ji ba mu demee ba jisatu leen mu sóobu yoonu gaayu yàlla yi yàlla defal ko yitte ju kawe mu jóg ne dann rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam def ko wasilam dallani allahu ala muhammadi وقادني محمد لصمد فوق ختم خين مور كوفا لولو ورال في مجار فيب اك ويردي يوم جيل ييب بكر اك باموي داجك موم صلى الله عليه وسلم دي جاينت اك موم وبايع اليوم الرسول المصطفى بخدمه واسال الله الوفاء احق جمله الورى بخدمتي بالنظم والنثر رسول الخدمه تا لولاي لا صح مو جورال كو بكانم اك بالله الذي لا إله إلا هو حياتي ومماتي حركاتي وسكناتي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mu jaral ko ñu génne kom réewam ak ñooñam ak i taalibeem xusuuriya xallat wal ahlu hanni tafarraqat bi matxi lazi xanhu lmadihu qasiru ba mu nekkee ca loxoy noonam it taxut mu taxut mu salit la mu waxoon ak cheikh ibrahima fati aduduhil ayman ne ko tubaab yi def oh sax mosuñu ko dégg ci man lu ne mu jàng mu jànkonte ko fa nattu yeneen ñu teg ko ko mu jaayanteeg boromam ne ko lu nattu diis diis ak lu mu tar tar dinaa ko dékku boo ma sàmmalee ruugi mu sax ca loola ba ab liggéeyam mat yàlla delloosi ko mu ñëw di xettali jaam yi di leen wan yoonu te tey ak ëllëg ijaal rujuu'i ila qawmi na wal takfina yowma jamhil xalqi niirana ci noonu lanu xalal yoonu mucc tey ak ëllëg kon moom li mu nu andil du ay théorie ak ci xalaati neen waaye dafa sóobu ci yoon wa ñëw ànd ak ndaw ñëw ànd ak solution ci sunuy jafe-jafe man shakka fi zalika fal yu jarri bi wa man yu jarri ba bi taxaru bi aqbalati dunya ilayya qablu wa biyantuha fasala anni l kablu nabbahtukum mahan ala kaddin bada lii qabla an ara ridan mu abada nee maa ngi leen maa ngi leen di yee di leen xamal ne toog naa lu ma ñeent fukk yoo xam ne maa ngi nekk ci diggante lu mel ne sukuraat ak najug bàmbeel lu ma génn rek dugg ci ba ca loolu lépp di wane fi mu jaar door am li sëriñ bi dafa fekk ñaar yoo xam ne falasifa ak xeltukat yi ak worom xam-xam yi mooy seen yitte jëpp te ñoom ñëpp a muy ni ñuy fexe ba defar nit ku baax ak ni ñuy fexe ba defar société bu baax te mucc ayib dale ko ci ñi fi jitt won ci ay civilisation ba ci tuba yi fi tuba yi fi muju ñoo ñëpp lool rek lañuy jëm andu solution te mu taleen tëj ndax lool yàlla mi ñu fënd rek moo ñu mën a fi ñu jaar ba am ci solution wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan dankan ulaika allazina hada الله hadahum allah fa bi hadahum muqtadi moo tax bu nu bëggee wan ni ñuy defar nit ku baax danoo delloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawmil axir ci noonu mu indi ñu modèle murid saadix mooy nit koo xam ne ay yëngoom akuk dalam ay waxam ak i jëfam ay defam ak i dindem len len la cay xaar mooy am ci ngërëmu boroom fu ma cay met ca la yem kon jëmu jume noonu nag lu nu soxla ngir mën a jagal adduna ak àllaaxira ak defar suñu àdduna ak suñu réew ba mu jag modèle bii Serigne Touba andi ci àdduna mu di modèle Modou Sadikh ëpp na li ñu naan citoyen modèle ndax citoyen moom weesuwul adduna ak lu ko jagal waaye Modou Sadikh nag li mu làmb mooy luy yéwénal sa digganteek sa borom ak sa digganteeg sa morom ak sa digganteeg sa sëriñ ak sa digganteeg sa sa digganteeg adduna ak sa digganteeg àllaaxira ba ci sa digganteeg la ngay fekk sa biir bàmbeel atastabdiluna la si huwa adna min la si huwa kon nañu xam li ñu sëriñ bi indil ak fi mu jaarle bu baax ak leneen ak len ak ak ni mu gàggante àdduna ci yoon wi ñu jaar ba defar modèle nit ku baax sëriñ biit dafa indi tontu nga bu jaaxaloon wa àdduna sëpp mooy ni ñu fexee ba tabax aw xeet wu ci ayib loolu it ni mu defoon ca ca laaj bu jëkk bi rek la defaat mooy wala warduuhu ila rasul wa ila ulul amri minkum la alimahu lasina yastanbituuna minhum moo tax mu wax ne ila llahi bil qurani wa sunnati allati hadadni sharaftu lkulla wal xalbu xaashiun alquran nag li muy ci tontu mooy inna allazina amanu wa amilu salihati tuuba lahum xusnu mab loolu nak day laaj dégginu xóot ci alquran di laajit mafhumul mukhalafa te moy la nek ci suratul asr wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr loolu lañu ñu bi dëxëñal ci dëkkam bi ak philosophie philosophie bi ko laytaay te moy taxawal société ci baasu iman ak al amalu salih ci maanaam mi gën yaatu nga xamne la moone lépp lu wax lu yàlla gërëm te mooy jëme nit ki kanam te de te lépp luy jëme nit ki kanam da cee duggaale loolu lanu lanu sëriñ bi daxañal ci mashruuxu Matlabul Fawzayni mu mu moo dajale fi mboolem principe yi jagal dundu doomu adama ci àdduna ak alaxira bayuyu ci dara kon sëriñ bi li mu ñu andil rawoon na ni xalaatkat yi di tërale ci àdduna dañu xalal yoonu muccu yoonu defaru yoonu suqali ko tey ak ëllëg ki ki fi def jalooru jëre ji nag mooy Sëriñ Tuubaa haasa xalqullaahi fa aruni ma sa xalqal lasiina min dodi ku melni ku ko yàlla baaxee dangaa war xam li nga am ta bañ ko fowé fal mu'tafa fal mu'ta kafafan kafaafan yektafi sëriñ bi da wax ne misal murid sadiq fi ibtidaa kasabi yëli si min badni ummi mona ne murid bu door a sóobu moo ko xale buy door a génn ci biiru ndeyam ñooyam mu ne xale buy door a dox am na amul am na lenn lu ko mën a may kattan lu namp soowum ndeyam bu ko bu bu nanguwul namp na muy def xanaa wuy ji boroom rek mu ne nan lay nan la ndey di nampale doom ju mu doom ju mu tëg mu bët moo teg ci ne ku ne mu ne ndey june bu mu teg cee ne gone bu ndeyam bare soow kooku xool xam ko daa bëgg na ngeen xam ne seen nday jiide am na soow mu doy mu doy sëkk tëru ko tëru ko jeexle ku nàmp ci moom da am kattan da nga am xel kon toog leen ci seen nday ba mat a fer waaye bu leen ferale it bu leen dem di lekk suuf ndax kuy lekk suuf te bëwoo ko faw nga tawat te tawat mooy waral faatu suuf si ma leen di tere nag mooy àdduna ak i xoyom xoyom ak jëng jëm ci ni ko a Cheikh Mouhamadou taxa li ñuy fàttalee waxtu ne wax na ko ci màggal gi rek ci woote màggal gi ne ne ñëpp gën a dëgmal gën a dëddu adduna gën a dëgmal sëriñ bi sëriñ bi wax na kon ñam yu may leen di diggal ngeen koy lekk mooy bàyyi àdduna ak la ci aju xam leen yaa joo gis ba soñoon doomam mooy kawe doom yëpp looloo taxit seen day ji di leen digal li mu leen di digal ndax àdduna bu xasee ba dugg ci xol bala caa génn danga sonn lool kon nag yam leen ci seen day te bañ te bañ a geesu di xool fen feneen na ngeen na ngeen def ni doom na ngeen def ni ni di def ak ndeyam bu ko jisee du amati soxla ci keneen bu ko gisut amatul yitte jurul wër ko ba gis ko doom daa war di nekk ci pekk ndeyam bu ko defee de du ko lor bu ko deful nag lu mu gis wër sa yedd ku dul boppam maa ngi ñaan yàlla mu boole leen ci doom yu dul gis ku dul seen ndey kon sëriñ bi wàccoon nag noonu ñoo ci des képp ku sukk ne aslamtu nafsi ba jaayante war ngaa xam ne moomatoo sa bopp al xurru xurun maa lam yatakalam baat de baat la daan laaj ca caddu ga te booba lislaam duggagu fi kon nag nañu bàyyi xel la yàlla waxoon saxaaba yi ne istara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahum janna sëriñ bi dañu war a gënal suñuy bakkan gënal nu suñuy alal gënal nu suñ lépp ndax ñoo ko jaayante ca ësal wa awfoo bi ahdillahi izaa ahadtum wala tanqudul aymaana ba'da tawkiid ba'da tawkiidihaa waa awfaa bi ahdihi min allahi fastafsiru bi bay'ikum allazi baayatum bihi wa zaalika huwa al-fawzul aziim kon dañoo war a xam ne jaayante du baat yu ñuy wax di sànni ku ko def da ngaa war a xam li mu laaj ak li mu nangu ak li mu nanguwul jël sifaatu saadixi muridi teg ci sa kanam boo ca xotti rek xam ne tegootoo ci yoon wa daana wax ne bët ba ba dañ koo jaawale ak unku ba ba far ko ngir nuroo ko kon nag ab murit day nuru nuru gaa yi yàlla yi sóobu ne ko sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Mountakha mii di misaal di wax ne yaakaar naa ne bu ñu xooloon ci moom suñu dox dana gën a gaaw mag ñi àndoon ak sëriñ bi nekk moom xumaag lu daj na ko lu ne nañu ko jafe-jafe bu ne daj nañu ko wa maa daaw foo mastakaano waaye yàlla jaral leen ko sëriñ bi jaral leen ko ba tax ñu seen boroom yëpp ba am lu kenn amul li ko waral mooy fa ñu tegoon sëriñ bi ak li mu leen jaral li koy firndeel mooy ba ñuy liggéey jumaay Tuubaa ji lu ne daj nañ fi daj nañ ko fi lu ne jànkonte nañu moom waaye seen Pastef jaral leen ko ngir xam ne li sëriñ bi bëgg dara mënu koo te am ay xeer lanu daa yenoon ndokk ba Tuubaa eh, lu jege fukki kilomètre di doxe seeni tànk ak di toj carrière ba te boobu machine yi amagul kon waruñoo dem ba jamono neex tax ñuy fooy suñuy pas-pas suñuy pas-pas ak suñ jaayante araditum bil xayaatu dunya min al axirati fa ma mataahu al xayaatu dunya kon bu demee ba Cheikh Mahmoud Muntaxa di ñu fàttali ñu nafaraat Matlabul Fawzayni te mooy làkku Tuubaa ba tax mu digal njabootu Cheikh Ibra ñu taxaw bali fi sëriñ bi bëggul bañ fi am kon day wa wane na ne war nañoo gën a jaajuwaat bu baax te xoolaat sunu bopp te takkaat sunu laxasaay te ku ne sàmm kërëm ak njabootam bu ñu ko defee lépp jek te xam ne sëriñ bi naxunu kon boog bu nax sunu bopp isil muridu la yuridu fil murid ila al wusul najian min al marid fa man ala khayri ilahi dallaka fa firra minhu innahu adallaka kon nak fi may jeexale mooy jottali sëriñ bi mu jëm ci mboolem kilifa yoon wi ak mboolem taalibe ci sant len ci li wessu lépp ndax mboolem somb yi yaatu na lool waaye yéen a ko ànd moom ba lépp da ko tim na ko sëriñ Saliou Mbacke daa wax rek joxe bii dafay jiitu laaj bi waaye daa wax ne waaye daa wax ne am murid moom du wàcc mukk ndax lool da sëriñ Touba àndi woon taalibe yi kon ñu gën a góorgóorlu ci ñaari yitte yii ci sunu kanam bu jëkk bi mooy daare Cheikhul Khadim ji nga xam ne def ngeen ci li ngeen man ak li ngeen mënul ba liggéey bi sori na lool waaye àggagul te Serigne Touba waxoon na ne ku ma defal loo man ma defal loo mënut ku ma defal loo mënut ma defal la la jombu te loolu ñëpp ci ñëpp ci teg seen bët kon mi ngi koy fàttali ñëpp jeexaale ko rek ci ñaaree ndigal li te mooy lu mu bëgg yaatal ci jumaayu Touba ji nga xam ne Serigne bi ko santaane woon nekk ku ci feeñ feeñ ba faw taalibe bu ko man wax ne na ci joxe ñaar fukk ak juróom-ñett mu nekk sa njotug sawara waxoon digle woon ci lam ci déglu lam ci dayli woon Cheikh Mahmoud Mountakha nag wax na ne bëgg na incha allah ba nawet bi wàcce jàmm am na aw somb mu fi a def mooy ay parisol yoo xam ne defar nañ plan yëpp ba noppi. nawet bi jàllee jàmm dana ko yëgal taali bi yëpp leeral leen lépp dana ànd ak ay climatiseur ba noppee yëpp lu mat fanweeri junni nit danañ mën a julliwaat jumaa dolli ko ca la fa nekkoon. ndax ñëpp xam nañ ne dëkk yu bari na jumaa ndax fii may wax ak yéen junni jàkkaa ngi fi ñetti téeméeri jumaa ngi fi ci diggante 91 ak léegi waaye jumaa ji nag day ndigal li nga xam ne moom la Serigne Touba bàyyi woon moo tax moom bëgg ci fa si yéene feeñal liggéeyu boppam bu ca tool rek dana ko yëgal ñëpp kon ñi ngi jeexale foofu kàddu yi di ñaanal nag ñi nga xam ne ñoom la yàlla suñu boroom def ñu faatu ci accident yi ndax loolu ni ñu ko waxoon ci tàmbali màggal ga rek waaye nit ñi dañ gën a góoroo te daw ndànk te xam ne nit du lekk lu dul wërsëgam wa ñi ci faatu suñ suñ beeg leen ñaar yàlla jéggal leen te tabbal leen àjjana ndax Sëriñ Tuubaa waxoon na ne képp koo xam ne ñëwoo ci siyaare sama rek na ko jéggal te defar ko teex àdduna ak kon ku ci ñëw rek ba ba ca sa bakkan desee na lu woon sa teex ak àdduna sa sa ak ëllëg taxaw na ba ca desit mi nga masaw nit ñi ci ndox mi ndax xam na ne. ndox mi metti na waaye nag nañ xam ne daa waxoon ne bu université bi àggee at mii da bëggoon woo taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ñu jaayante ko nañ defoon raay bi ak nañ def Masaalikul Jinaan waaye yàlla def nag bi nguur gi ñëwee jël seen yitte jëme ko ci moo tax moo jël lépp lépp jëbbalaat leen ko te leen ci diglu ngeen xam ne ña nga ca te wax nañ ko ko mag ngi leen ci diglu moo tax soññu leen ci waaye ren jële ko bëggoon a tàmbale liggéey Sëriñ Tuubaa kon mi ngi sant taalibe bi yëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf euh, Mbacke. Euh, xol yi sedd na guy. Euh, di cérémonie officielle bi. donc xam ngeen ne waxtu wi dañoo xoj fi mu nekk nii ak tamit engagement yi nga xam ne télévision nationale am na ko donc René Léon Fonseca